jaa jëf mbokk yi dal leen jàmm ci seen seen ci coow li Sénégal ci jamono gi nga xamante ni si nii moom la aji politique yeeg nguur dëkkee ci xaar ma yàlla jamono jooje ñi nga xamante ni si nii sax ñoom ñoo di aji sàcckat yi ñoom ñoo ngi def seen liggéey ci anam gi yemb ndaxte bis bu yàlla sàkk askan wi fii ñuy xëy di jàmmat ñàkk gi nga xamanteni ne si nii day gën a wulee ñaay ci biir réew mi waaye du téye saa su nekk ñuy jàmmaarloo it ñi nga xamanteni si dañuy jël seen moomeel bii la yoon sax de ab artiste bu mag fii ci biir réew mi di Demba Guissé moom lañ sàcc benn kopparam gu xaw a takk lool moom sax woykat bi di xam le ni du bile yoon mooy guléet ñu koy sàcc koppar gu takku ba tax na sax ñenn ñi jàpp ne dafa mel ni ginnaaw bu mu génnee ci programme bi nga xamanteni si ni moom la doon def ci jamono jooji la kat bi ñëw rek daal di jël li nga xamante ni si moom la liggéeyoon moo waral nag moom woykat bi ak ñi nga xamante ni si ñoom ñoo bootu ci ginnaawam des staffam fas yéene porte plainte contre X ngir rek mu jotandi waat ci moomeelam boobee sàcc gi di tulle màlle ci biir réew mi ci jamono joo xamante ne si ni ku jëy politique ak état ñu benn yoon ci anam gi ñu yoree réew mi ñenn ñi sax jàpp ne sàcc gi lenn sax moo ko waral mooy askan wi jamono ji ndóol gi mu ndóol te ñi nga xamante ni si ñoom ñoo féetee ci bopp réew mi ñoom bis bu yàlla sàkk ñuy gën di bëri doole di bëri alal moom dama gisee nag ci sàcc gi nga xamante ni si moom lañ ko sàcc moom jàpp na ne sax ki ko def xaw na koo jege lool waaye itam moom xamle na ni sax de dina def moom ci li mu mën ak kii ñi nga xamante ni si ñoom ñoo yore wàllub yoon ngir teg ko loxo ndaxte sonn na lool ci sàcc yi bëri